asalaamaaleykum bokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen nuyu di leen ñaanal jàmm ñëwati nañ seen biir émission bi nga xamante ne nii moo di Bakh Yaye Show ñoo leen ko diggoon tax ku ne xam na ne digg ay waxtaxul biir fees te newoon naa leen Bakh Yaye Show moo nekk émission boo xamante ne nii nee naa la Bakh Yaye Show nen la te kenn du ko baxal kenn du ko omelette nee la Bakh Yaye Show dañ koy maynees tarkala ku ne daal ku ne jël ci sa wàll tey nag baax yaay sow nee leen fi ñëw mooy fi nga xamante nii mooy marché Ocass fi nga xamante ni mooy avance si ki bi ñu dippee ko fi nga xamante mooy Toro Vaisselle Toro Vaisselle nag bu ñu ko waxee taarkeel la lépp loo xamante dafay daal di kër lépp loo xamante nii ay xeetu baax baax la am na fi nga xamante mooy Toro Vaisselle mais avant tout dañuy dugg ci biir place bi daal décortiquer xeet xeetu baax ki fi yor cër ak i dogal ami sañ-sañ ci diine te yënguwul moo ku may Ababacar ki fi yor cër ak i dogal ami sañ-sañ ci diine te yënguwul moo ku may Ababacar ca gaalewul ki mu doon moom kooku mooy Ababacar mbër mi kenn ca gaalewul ki mu doon moom kooku mooy Ababacar mbër mi kenn dëkkaalewul ki mu doon moom kooku mooy Ababacar xalifa maan bay na samaawaat ki mu doon moom kooku mooy Ababacar xalifa maan bay na al arde ki mu doon moom kooku mooy Ababacar andi Cheikh soog a dem. kooku mooy Ababacar Sy.

sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Mansour bu nu sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Abdou bu nu sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Habib si bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Mansour bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Cheikh Tidiane bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Abdou bu nu sàggan ci Babacar

ana soppey sëñ Mbay Mansoor yi bu nu sàggan ci Babacar Mbay ana soppey Sëriñ Mawdo Si bu nu sàggan ci Babacar Mbay ana soppey sëñ Mbay Abdou bu nu sàggan ci Babacar mbele yéen mbokki taalibe Cheikh yi bu nu sàggan ci Babacar mbele yéen mbokki taalibe Cheikh bu nu sàggan ci Babacar ana ñi bëgg sëñ Babacar Si bu nu sàggan ci Babacar mbay ku ci sàggan ñu dem bala bala mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay ku ci sàggan ñu dem bala ci bi ku ci sàggan ñu dem bala ci bi ku ci ñun ñëw ñu dem bala ci bi ku ci sàggan ñu dem bala ci bi ku ne di ñëw ñu dem bala mbay nañu wayloo te coppi ko mbay ba mu jiitoo newul fi nun mbay la ko jiital newul fi nun mbay dafa ànd ak mbayam yu doy mbay si bu jiitoo ñu topp ca ñun bu nu jàqee mu jàlle noo mbay bu nu tiitee mu wallu mbay ba ko woowee mu wiisi la mbay bu nu jàqee mu jàlle noo mbay bu nu tiitee mu wallu noo wuy si laal waa baytul wilaayati mbay dafi jëmbam ci diine ji mbay moo rangoo xilaafa gi mbay moo rangoo xilaafa gi cheikh ni ko bàkkul ci diine ji ko mbay koo di may mu daal di am mbay koo gàntal ñu xañ ko ko mbay xaw soo um nga lambi ji mbay moo ëpp lambi ji ñu maam xalifa moo ëpp lambi ji ñu maam xalifa moo ëpp lambi ji ñu maam xalifa moo ëpp lambi diine ji ñun nañu liggéeyal Seydi Mbay ñun nañu liggéeyal Seydi Mbay mbar na ko liggéeyal Seydi Mbar na ko liggéeyal Seydi Mbar na ko liggéeyal Seydi Mbar ndax booy liggéeyal Seydi Mbar bés booy faatu da ngay nelaw nelaw yowoo ji aljana taalibe Cheikh buy faatu dafay nelaw nelaw yowoo ji aljana taalibe Cheikh buy faatu dafay nelaw nelaw yowoo ji aljana yi ana ñi bëgg sëñ Babacar Si bu ñu sàggan ci Babacar mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay nañu wayloo te toppi ko mbay ba mu jiit jiital neexul la ko jiital dafa ànd ak mbayam yu day mbay dafa ànd ak mbayam yu day mbay dafa ànd ak mbayam yu bu nu jàqee mu jàlle noo mbay ko woowee mu wuy si mbay bu nu jàqee mu jàlle noo ko woowee mu wuy si la am iskila mam bu nu jàqee mu jàlle noo bay bu nu tiite mu walla noo bay ba ko woowee mu siir ak may jàlle noo ay sujjee ay yëpp ngi gim sirat mbay jàlle no ay fiji ek ay yóbbaale no ëllëg ngi gim sirat mbay jàlle no ay fiji ek ay yóbbaale no ëllëg ca kaw saar ay ñu naan ndal ñu kaw saar ay ba man di dem ca kaw saar ay ñu naan ndal ñu kaw saar ay ba man ay ci kon gaay gis ngeen li nga xamante ni moom lañ décortiqué ci li nga xamante ni mooy ci biir place bi parce que ku ne xam na ni gis ngeen xeetu bax bax yi nga xamante ni moo am ci biir place bi donc ni ma leen ko waxee woon ne woon naa leen bax yaay sow ci lépp lay dox te ku ne xam na ne plage bi nga xamante ni moom lañ duggoon léegi gis nga ni mu yànjee tarkalla donc nag bala maa tàggatoo ak yéen dama leen jox li nga xamante ni mooy numéro téléphone parce que ku ne xam na ne Toro du ay jaaxaan numéro téléphone bi nag mi ngi nekk 77 942 13 21 wala nga woote ci 70 731 41 01 nga woote ci 76 551 86 49 bëggee ci émission yu baax yi da woote ci 77 678 70 70 77 678 70 70 mbaa ba tey nga def si 78 452 48 72 78 452 48 72